tey naa wandoo rek ku ci bitti lebin ndax nag la ko waroon yëpp def na te boobu ba léegi lu mu def xeeb ko boobu ba léegi Viviane ngi terle boobu ba léegi Viviane ngi dalal ku ne waaye ku mu dalal rek bor la bu muy fayeeku dafa yàgg leble ba tax biñ ko fayee rek kontaan ku ñu fay nga mer nag la nga lépp lee baaxul eh, woon Alaaji Mor Thiam Bamba bu ma sori maam bët yaay awa mbay ziar naa bajaan boobu ba léegi maa ngi lay wante baara bay faru ja ciiru ku ci sax dina ma neex waaye Adja Ndeye Seydou Ndour Abdoulaye Darou Mbar Madior Darou Mbar ak Matar ñu ngi toog ak doomu ndeyam mbokku ndeyum Assane ziar naa la. Koura Macky Koura Macky. daanaan nga ñaari yoon. Koura. daanaan nga ñaari yoon. jëriñ sa réew xale. jëriñ sa réew ci bi ngay mag. moo teel a ñàkk xale bi bëgg yaayam yéene ni rakkam boo mu nee na nga kajoor di wax kajoor di wax mu ñuul nga nga bàyyi kajoor wax loolu mbégte la. Uh-huh. moom artiste yëpp a yaayam lañ. Uh-huh. parce que yaayam nit la ku baax ku ñàkk ci ñaan. Uh-huh. ku reconnaissant. donc am naa mbégte ilaha illallah de musu ko ku def dégg yi xeetu lekk ku def dégg ku def dégg wuyu loolu ku deful doo waaw ku def dégg waaw loolu dëgg la Clara nga ni ma boo koy def kenn du la naw ma ne ko fodi waay fi cakas huran kun cakas cakas huran kun ma seede ma way ñaa boo ma seede ma wax ñaa xarañ boo ma seede ma wax ci Kalaara Zeynab taalibe Serigne Babacar alhamdulilah waaye deful lu dul tàmbali li ñuy def nii. mais ki gàll la avant premier ci loolu dañ leen di ñaan nag. mais rek lii moom liñ des champion la. Bousse lii sa xew mi bis bu jeexee man Bousse doo ma dem benn xew ci àddina man moom bu ma kenn yëgalee ci xew benn programme non mais Bousse suñu mbokk naar yi dugal. ah bu ko defee mbooloo mi. mais lii lii rafet na waaye. li rafet na ak ay applaudissement say xarit rek fi taxaw ah bu ñu mënee jóg taxaw sax jóg taxaw ndax fu mu nekk ni li ma jaaxal xale yi dañoo am maanaam. maanaam wax tubaarkàlla ñoom ñëpp ñoom ñoom waaye ci waaw rek. waaye Youssouf waaye bu ñu benn ndax xale yi Ndakaaroo mel noonu. ndax nag. la ko waroon yëpp def na. te boobu ba léegi lu mu def xeeb boobu ba léegi Viviane gi terle boobu ba léegi Viviane ngi dalal ku ne waaye ku mu dalal rek bor la bu muy fayeeku dafa yàgg leble ba tax biñ ko fayee rek kontaan ku ñu fay nga nag la nga leblee baaxul woon eh, Alaaji Mor Caam Bamba bu ma sori maam bëgg yaay awa mbay ziar naa la ki na bajaan boobu ba léegi maa ngi lay wante tey dañuy baara may faru ja ciibu ja booy jikku ci ki sax dina ma neex waaye Adja Ndeye Seynabou Ndour Abdoulaye Darou Mbar Madior Darou Mbar ak Mataar mi ngi toog ak doomu ndeyam mbokku ndeyum Assane